الله أكبر الله أكبر ñu jox wax ji wala ko wax moom ah na xam ni de dugg na ci boppam ci du lëndam dugg na ci boppam ci fitna àddina na xam ni mi ngi woot woona ci boppam fitna àddina ak àllaaxira jàmm bis ni bis bi mu waxee kàddu bi ci lay gëj amee jàmm waxuma sax ñoom seen baatin waaye am na ñu jub ñoo xam ni daan jëflanteeg moom te mu mu ngi ne faa nga moom waaw ndax nit bu nga làqatu fu ne jëf say say bax wala nga wax waaye na nga xam ni yaa ngi ni faa ñëpp xam nan xam nan la bu baax te mënoo rëcc kenn itam loolu wàllu zaahir la amma ñun ba lañ ci keneen di jot sax ci wàllu zaahir di jëflanteeg moom yàlla ñoom daan jëflanteeg moom ci du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 mbokk yi ginnaaw bi ñu santaatee yàlla subhaanahu wa taala ca mayam ya ak màggaayam ga ak kaweem ga ak sellam ga di julli ca sang bu sell ba sunu yonent bu tedd ba sayduna muhammadin salallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi delsiwaat nañu ngir def benn commentaire ci vidéo bii muy jëmm ji nga xam ne dafa sol li ñuy wax mbubbum Euh, yàlla taxaw di tëkkuwaate ak di wane ne luy jariñ nit ci àdduna ak àllaaxira ci loxoom la nekk ndax lisaanu maqaalam boo ko xoolee fa mu jëm ci lisaanu xaalam loolu lay tekki di wane ne maanaam luy loraangeeg àdduna ak àllaaxira ci loxoom la nekk ba tax muy tëkkuwaate ci li nga xam ne moo di ak dee wala li nga xam ne mooy dundu gu naqari sama xel dafa dem ca firawna ba muy tëkku yonent yàlla muusa alayhi salaam mbokk yi kay di ñu ànd ak alquran alquran ne wa qala firawnu zaruni aqtul muusa waliyadcu rabbah إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب برم تبارك وتعالى مني فرعون بمدمي بيك بوبم Ah, xool ay pouvoir am ak i ndombay tànkam yaakaar ne lépp ci loxoom la ne muy bajant naan zaruni aqtul muusa bàyyi leen ma ma rey muusa gis nga waa ji li mu wax loolu lay teg bàyyi leen ma ma rey ko ndax bu oustaz omar sall bis naka tey duutul am jàmm fii ci àdduna ak fa mu jëm kon loolee la wax muy wax ju rëy di ak yàlla wal yaddu rabba na wo boromam kon leegi génne na ca loxal yàlla ne yàlla ko doon aar moo ko doon sàmm te diine ji képp ku koy sàmm yàlla subhanahu wa taala moo lay sàmm ixfazillaha ixfazillaha yaxfas ga sàmmal yàlla yàlla sàmm la bi maana sàmmal saria bi yàlla bi di ko défendre yàlla sàmm la kon moom lan lay déggee wax yonente bi alayhi salatu wasalaam joojo inni akhaafu an yubaddila dinakum aw an yusira fi l ardi alfasade firawna dan ne dama tiit dama ragal muusa sanser leen seen diine ji te mooy kàccoor gi ak bokkaale ak yàlla gi ñu nekke tasaare ci kaw suuf li nga xam ne moo di ak mbon aku yàqute te muy wéetal yàlla gi la ci jublu kon jëmm ji dafa bëgg ne oustaz omar sall ak mboolam ñi nga xam ne ay doaat lañu di woote ci alquran ak sunna dañoo bëgg a sanse seen yooni tasawufi naam am dañ ko bëgg sansé mu yaakaar ne dañoo bëgg yaq aduna bi déedéet dañu bëgg defaraat bi defaraat pas pass yi ginnaw ñom bañ ko yaqé wa qala musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabirin la yuminu bi yawmil hisab waaye yent yalla musa ci dëgër ga ak yalla am ak jeex tak ci borom bi tabaarak wa taala lan la tontu fir'auna mu ne ko inni ustu bi rabbi wa rabbikum maa ngi muslu di ci sa borom yalla mi nga xamne moy sa borom min kulli mutakabbirin ci kep ko xamne da fay mbeur mbeurlu di wane ni la tollu di wane ne may alak may ray may toroxal may ñak ñakal nit ki jàmm la yuminu bi yawmil hisab te gemul bisu penc ndax ku gem bis penc do wax lol wa qala rajulun muminun min ali fir'aun ben way bu gem yalla ci ñituñ fir'aun nya dal di jog taxaw jël palaram ba mu deme ba mënu muñ tëkku yi nga xam ne firaw naangi koy tëkku moussa moo ah, nga xam ne dafa nëbboon ak ngëm yàllaam ngir bañ koo feeña ni di ko fit naal mu ne leen ataqatuluuna rajulan an yaquula rabiyallah moo ndax da ngeen di rey benn waay boo xam ne liy problème am mooy yàlla mooy saaboroom moom lay wéetal moom lay kennal te ci wéetala wéetal yàlla gi ci lay woote moom laay kennal lu sexul ci sariya ma mabb teg na le moo ndax kooku da ngeen koy rey وقد جاءكم بالبينات من ربكم تلب لملين وخ دكوي اندي اي بروف يجوكي كي يالا نسي لكو يالا وخي وإن يكو كاذبا فعلي كذبو تنجن كو بايبو فكينا لمي ولمي واتي دو دج آ بكارم نيكو وخ دجم دينا كبو جيكاوم وإن يكو صادقا يصيبكم بعد الذي يعيدكم آ وينك بو فكينا كو دجو لكي لمي واتي دي دانا لين دال لين كي لنغا خامن ممجن كو يتكو kon ñu bàyyi xel ne ñoom ñii dañuy tëkkoo oustaz omar sall nekk ci alquran ak sunna di ci woote waaye tim di ci bay waaram di gindi ay jaami yàlla yu bari yoo xam ne ñoom ñoo leen réeraloon ànd ak wax joo xam ne ku ko peese ci sariya maanaam du génne benn poids ah, mu taxaw loolee daal di koy xamal ne lii kat ëpp na di wax ci kilifa ah ñoom ñu tàmbali di ko tëg kon nag yusibukum baadu lazi yaidukum lenn ca la ñuy dig omar sall seen kaw lay inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab ndax yàlla day du gindi do oriente du jubal képp koo xam ne ab yàqkan nga ci kaw suuf waaye tim di fenkat bu màgg te kii li wax lépp ay kàcc la ay fen la ana fan la sariya waxe ne sëtu yonent sallallahu alaihi wa sallam bu defoon aw njombe kenn du ko kenn waru koo wax te yonent bi ba eh, imraatu mahzumiya ba sàccee nga xam bu noobul dan sàcc dañu koy nës nësal waxtaan ci bàyyi bu bu baadoo la sàccee ñu dagg ab loxoom léegi bi nga xamee imraatu mahzum ya bokk ci giir bani mahzum di famille bu rëy ci arab yi bokk ci waa xorays ba mu sàccee ñoom seen biir ñu daan ne ah bu tonni sàcc kat ëpp na di dagg loxoom ana kan mooy dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxtaanal ñu ak moom ngir ñu ba ñu daal ñu daal bañ a dagg li nga xam ne ab mooy di ab loxoom ñu ne usaamatu ibnu zeyd usaama mooy ñëw tinul leen ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir bañ mu dagg loxay soxna soos ya sàcc yonent bi sala allahu alayhi wa alihi wasalam ne ko atasfahu fi xaddin min xududillah moo ndax usaama danga may tinu ci atte boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko teg daan ne law anna fatimata binta muhammadin saraxat la xataatu yadaha mune fatima domi muhammad jublu ci fatima momam nga xamne moy sharif di sëtu yonent bi alayhi salatu wassalam di sërifa bu sel yonent bi ne fatima sama dom ji bu fekkon ne mo sàcc sax damay dag ab loxom kon atte bobu moy yobale kep kuy wote wo ci ahlu bayti rasul di sëtu yonent bi alayhi salatu wassalam ndegam fatima bu saccion l'islam da koy kondaame dag ab loxom kon keneen koo xam ne sëtu yonent bi nga te gën koo sori kon boo defee aw ñaawteef bu boobaa l'islam daf lay atte kon wax ji mooy wane ne li muy wax lépp ay mbuusur la ay kàcc la ñun nag yàlla subhanahu wa taala la ñu àndal fii ci àdduna te insha allah moom la ñu àndal ci alaxira moom la ñu jox sunu lépp qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkal almuminun audio bii nag képp koo xam ne mën nga koo déggatal ba mu yegg ca na yegg ca moom ba mu xam ne ñun làquuñu ñu kudu sunu borom tabaraka wa taala mi borom asamaana suuf moom miy tëkkuwaate ndax wóor na ko déwén ci heure bi muy tëkkuwaatee ci biir bàmmee la koy fekk wala bu ko fekkee ci àdduna ci paralysé wala ci ay problème la koy fekk kon wax jii mu wax di cërub yàlla mu cee tëkkuwaate na tuubaat te dellu ci yàlla ab jaam mën mënalul moroomum jaamum tus asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu